siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp luy fi koy tambalé muy ciowal 94 milliards suñu ñu ciowal 94 milliards xel yeb day dem ci kii di Ousmane Sonko di leader du Pastef ak kii di Mamour Diallo directeur des domaines ginnaw coow lolu bu mu také nak gis ngeen kii di leader du Pastef di Ousmane Sonko dafa porté une plainte qui di Mamour Diallo ginnaw ben transaction bo xamante amon na ci ben terrain titre foncier bo xamanteni waron nañ ko jaay kiko momon di famille Feu Mbengue maanaam bi fi jógee woon nekkoon foofu ca Rufisque ginnaaw transaction bobu nak bu mu amé kii di Ousmane Sonko dafa jàppoon daf ci waron am commission bu tollu ci fukki milliards milliards ak ñaar maanaam muy douze milliards ginnaaw loolu nag coow loolu yaakaar naa ni lëmbe woon na Sénégal presse bi yëpp jotoon nañ ci ba mu doonoon coow bu mag a ginnaaw loolu nag kii di njiitu Pastef di Ousmane Sonko moo porté woon plainte foofu ca tribunal cour d'appel ba ginnaaw loolu nag jàppale ni que verdict bi daanu na verdict bi nag bu mu daanoo jàppale ni que baaxul ci kii di Ousmane Sonko ndaxte Ousmane Sonko ñàkk na commission boobu mu doon xaar di ci commission bo xamanteni ci 12 milliards que Ousmane Sonko tribunal bi dal ba commission bobu ci jot muy document yoy ngeen di gis après délibération bi juge bi joxe verdict bi muy document ngeen ba tey dañuy des ci coowal 94 milliards yi waaye bi yoon du ñuy ñëw ci Ousmane Sonko dañuy ñëw ci homme d'affaires boobu nga xamante ni mooy titre foncier boobu nga xamante ni maanaam mooy titre foncier bi nga xamante ni mooy 1451 boobu nga xamante ni euh, kii moo ko moomoon muy héritier famille Ousmane Mbengue jàppale ni que daal tribunal décidé na lépp lu toll ci 258 hectares ñu delloo ko héritier famille feu Ousmane Mbengue boobu muy affaire milliards bi nga xamante homme d'affaires bii di Tahirou Sarr taxewoon na ci laale woon na ci ndaxte turam feeñoon na ci bu baax Tahirou Sarr nak muy homme d'affaires boo xamante ñu ko ràññee bi Macky Sall ñëwé ci pouvoir bi xam ngeen ni bi Abdoulaye Wade nekkee au pouvoir ku nekk dafa doon créer ay homme d'affaires am ay milliardaires Cheikh Amar lañu ñu ràññee waye ginnaw bi Macky Sall ñëwé au pouvoir ki di Tahirou Sarr lañu ñu gënoon ràññee ci milieu affaires bi jàppale ni ka dal coowal 94 milliards yi nga xamante Ousmane Sonko personne commission de 12 euh, milliards ki di Tahirou Sarr aussi tribunal daf ko daan pour mu delloo 258 hectares yi mu restituer ko héritier famille feu Ousmane Diagne boobu ginnaaw ki présidé woon euh, jugement beaucoup di juge Sambakan bi nga xamanteni mo moo ci côté ki di Fatou Diagne Thiaw Diawara ak tribunal bi dal ordonné nag euh, conservateur yoyu nek ci par décision en date du 15 juillet dernier la reconstitution du titre foncier à l'état où il se trouvait avant l'acte notarié du 8 avril 1978 et février 1979 ce sous astreinte de 100 000 francs CFA par jour dal lolu ñu leen wax dal dañu 258 hectares lu mu yex boss bu nekk dinañ fay lu l'autorité ci 100 mille francs bataille n'est ce ne suñu sukkandikoo ci journal Libération nee nañu récemment gis nañu ki di Thiandoum bi représenté représenté woon héritier yoyu mom dañ ko débuté woon face à taille Sarr muy patron Safico Tahirou Sarr mom mom société boum ñu dippee Safico ginnaw lolu nak après dernière yi dañu poursuivre d'un appel pour escroquerie bo xamanteni ni won woon na ci tollu 600 millions manam téeméeri millions ak ñaar euh, côté première chambre civile de tribunal all classe de Dakar bi mu rendre décision définitive nak décision définitive d'un ko déggee maanaam mooy qui sonne un coup de tonnerre concernant l'affaire du titre foncier 1451 R tribunal bi rendre le verdict bi maanaam annulé na lépp loo xamante acte boo xamante posé au nañ ko année à yi ñu passé c'est héritier feu Ousmane Diagne yooyu tegoon à savoir qui du Omar Mbeng Ndeye Mbeng ak autres cour d'appel Kaolack bi aussi mon nom ay opposition yo xamanteni defon nako ci indépendance confirmée pour annulation vente Bobu nga xamanteni doxone na ci diggante yenn ci hérité kooku di feu Ousmane Beng kii di milliardaire bi nak di Tahirou Sarr te nekkaloon fi état bi mom mo décaissé woon xaalis boobu jàppale ni que dal lepp nul na les tribunal décidé dal muy deux cent cinquante hectares yi ñu ko hérité feu Ousmane Diagne muy coowal quatre quatorze milliards yi nga xamanteni ni ba tey jii moo Sénégal yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba ba